yuy defar mbuusu ndox te yëpp buñ ko jëfandikoo ba pare dañ koy sànni Dakar rek dañuy xëy di sànni juróomi million ci ay mbuus Dakar kese Touba bokk ci. mi ngi ci ci mbuus nga jënd ngi ci mbuus boo paree may la beneen mbuus tegal la ci mu nekk fukki mbuus ak juróom-ñaar soo ñëwee waat say jën boole mbuus yëpp. comme ministre de l' environnement dinañ xam ne tey jii au moins bés bu yàlla sàkk muy noor muy nawet muy naaj lépp ku xam Babacar Mbengue xam. lii moom mooy pollution plastique ndax lii waaye Assalamualaikum. salaamaaleykum maa ngi tudd Baye Serigne Dia dekk fi yarax an bel di jeune di yewo fi bëgg sama gox gi sama gox mi nu mu melni mu bet ñu trop da danoo xey suba rek ñu ñu ay ñu tammi ñu xam gox ñor fo ñu jog japp si ñi gis ni ñepp suñu yaay lan ñi suñu jabar lan ñi suñu tante lan ñi suñu bajjal lan ñi suñu papa lan ñoom moom fii yaraax ñu on est des fiers d'être yaraaxoise parce que fi lañ dëkk fi lañ juddoo fi lañ yoroo fi ah, lii nag dugg guléet quoi c'est pas la première fois yàgg na ay at at fii da nga demoon ba tuddee woon bee de aan bee bi nga xamante ni ñu koy comparé ak beewu Brésil Brésil ba léegi nga xamante ni ñun cosaanuñu fa dëkkuñu fa xamuñu fa fii lañ xam fii da ngay yeewu rek jàkkaaroo géej te loolu yombul boo demee si yeneen dëkk yi da ngay plus de cent mètres di ngay jéggi autoroute di ngay jéggi di ngay jéggi forêt pour mën dem si géej si mel ni dëkku Maroc yi si bari bari ngaa gis seen géej yombul kon ñun lii fierté la et puis nekk dëkk ba nga xamante ne ni ay moo dañ fi yeewoo di daan seen doole waaw kenn xamul leen dara lu am suturloo quoi lu am ñu koy suturloo quoi mu nekk seen nag seen seen yaakaar quoi tey ëllëg parce que boo si demul rek après population bi da nga koy daal. waaw benn bi mel nii du suñu sàggan parce que fii roqu la fii boo sàndee malit mu jugee caare wala tëngee sax fii lay ñëw kon ñun loolu mënuñu si dara fii maam day yàbbi loo sànni si beneen dëkk même bu yeen même bu dee tubaab jalaaw ak dëkk bu am géej foo sànni rek day ñëw fii fii roqu la fii maanaam lu fi xas ba dugg rek du mën a génn waaw. waaw Sénégal neexut ñun ñëpp ñoo quoi comprendre après parce que lii nii muy def nii mooy indi effet yi si biir kër yi quoi parce que parce que mënoo mënoo mënoo mënoo yenn seddoo amul fenn quoi suñu doom fi foowee suñu jarbaat yi fi foowee suñu papa yi wala suñu yaay yi fi pour di waxtaan wala di mën a parce que lii nee naa la yombul léegi am na ñoo xamante dañuy jugee fu ay goxi goxaan fu nekk xam di ñëw di benn air pur bi quoi ñun fi leen am fi leen fi leen fi leen fi lañ tiitoo daal ok merci jërëjëf kontaan naa yàlla na yàlla defal defal leen jàmm. Capa TV waaw yàlla na ko yàlla yokk mu doon ay télé yu mag a mag a mag ba ñu séntu leen feneen si diaspora bi fu mu mënti doon si àdduna ok jërëjëf. na salte ni li nga fi def kon yow xam nga si dara mi ngi noonu man fii dama bëgg mu set rek bu setee ñun ñëpp la setal koñ bi bu setee ñun ñëpp la setal. seet nag ñëpp a ko bëgg nit ñi nag ñooñu war a jàppale ñoom ñuy ñëw fii nañuy tuur fi ñu war a tuuree bu dee mbalit demal tuuri oto mbalit chaque jour nag mu ngi fiy ñëw mbalit moom manqué wuñu ko oto yaa ngi fiy ñëw 5 pour 5 ñu ngi tuur mbalit am sa mbalit na nga ko dem tuuri ci mbalit bu dee nag ndox eggal ba ca géej gi nga tuuri ko fa loolu moo gën a rafet pour man fii nag bu setee ñun ñëpp la setal ku yeboon nag def lu set rek man loolu laa waaw man man de su ma ko gisee kenn ko fi tuur moom man ma bu ma ko gisee kenn du ko gis nga suñu kër gi jeeg xam nañ ma sax bu ñuy tuur ndox bu lu salté lu ma am sax damay xool li nga yore ñu dem tuuri ba ca ndox ma lu ma bëgg sax ñuy tuur fii ndax man ci mbaar mi laay nekk ndax damay bañ weñ bi dama fekk ak salté te loolu yëpp suñu biir néegi la jëm xam naa ak xale yi fii fooye yëpp feebar bi yëpp mën na leen fi fekk loolu yëpp man fii bu ma toogee si mbaar mi ñoom xam nañ ma sax ba dañ ma xam bu ñëwee nañ yow buñu gisee dañaa ah ta amina sa de moom lii lay bañ dañuy ñëw dem tuuri ko ba fee ñoom jox nañ ma respect boobu fii nag nit ñi bokkuñu yem ñii dañuy ngay defar ñii di yàq ñun moom ñu ngi def lu ñu mën ñun suñu xëyee nag ñun maire yi ñun ñooy bale koñ bi ba mu set bu setee fii boo fa rombee mu set rek ñun ñi ñoo ko setal fii nag bu ñu amoon matériel chaque dimanche bu dee benn dimanche sax dinañ ko defar ñu koy setalal suñu bopp xaaruñu si kenn nan nan ñu abal ay ay rato rek ak brouette loolu rek la ñu soxla suñ ko amee rek mën nañ defar suñu booru bi kon fii benn salte du fi tak man leer na ma ni mi bis boo xëyee da ngay bale bul ñaan yàlla mukk xëy te bale woo ndax seen ñëpp ko bëgg boo xëyee ba rek eh, mën ko rek eh, setal te yàlla tax ñun dañoo sonn ci bale bi ku ñu mën a jàppale fii nag dañuy jël parce que suñu doom yi fii la nekk di salte xoole fii la ñuy fooye di taq di jël micro ci dara suñu sët yeeg suñu doom yëpp fii la ñuy fooye seen na kon nag set comme se comme yàllaa ko bëgg ñu ñu ji yaar rek bu ñu bu xëyee bu ñu mën a bale ku ñu mën a jàppale dañu jël man li ma bëggoon wax yëpp kii wax na ñoo fii bale am na ku nekk fee ba demee côté bi am na ñuy bale foofu ñu bale ah man la Khady Sène maa ngi dëkk Hann Bel-Air quartier Hann waa ñun nag suñu koñ bi dañoo yàgg di set te kenn jàppalewu ñu si nag di am nañ suñuy propre suñuy propre am nañ ko fii am nan ay buret am nañ per waaye dafa matul ku ñu bëgg nag ku ñu si jàpp nag lañu bëgg gis ngeen géej gi nu ñu mel te ay jigéeni kese la ak ay xale yu góor yu ndaw ñun daan nañ dem si meer waaye li ñu daan ko am li ñu bëgg si matériel yëpp mënuñu ko am yaa may dégg booy wax da ngay wax te dëgg rek ta yàlla tax lin daan am lin daan am si matériel bariwul waaye ñun gisuñu maire bu ñu jà ñu jàppale fi ñii ñë mën nañ maa témoin dëgg la wala déet bu du dëgg rek nañ wax booy wax da ngay wax dëgg te télé moo ma tiim waaw ñun fii kenn fekk ñu fi ñoo fekk sañuy bopp chaque dimanche dañuy bale di natt suñuy 200 am suñu kees am suñu lépp ñun ñii ñëpp ak suñuy doom yi ñoo ñuy jàppale. bi kii bii ñëwee nag projet bii ñëwee ñu wax ñu tey ñu ñëpp ñu génn ñu mobiliser ñun ñëpp ñu génn ñuy ñëw di bale defar ma mu baax nag ku nekk yow sa koñ waroo say xaar sax ku la si jàppale yow yaa si war a jàppale sa bopp ba pare doog nga doog a xaar ku la kuy ñëw nag ku ñëw nag dimbali si bu fekkee dala see fekk. ñun ñun noonu lañuy ñuy liggéeyee sunu koñ bi ñun ku ñëw rek dañ ñu fee fekk ñun man ëpp naan vingt vingt pour cent déedéet ëpp nañ sax téeméeri personne ñu jigéen ñi rek ëpp nañ vingt pour cent waxatuma laa xale yu góor yi foofu lay waxee ñëpp ñooy génn fii mag ñi sax mairie sax dañuy génn di defar waaw léegi nag ku si jàppale nag mu gën a set mbalin mi gën fee génne ñun loolu la ñu bëgg ak xam na paan yi jóge si biir dëkk bi ñu siy sassa ay ndox ñu wutal ñu ku ñu gardeel fii loo ba nga xamante ne benn salte dootul dugg si géej gi ak mbalin mi nga xamante ne fu nekk lay jóge di ñëw fii di teer fii xam nga lii yëpp jógewul yaraax si àll bi rek lay jóge te xamoo fan lay jóge yooyu yëpp war nañ ko saytu pour ñu xool mu fi mbalin mi di génnee ñu téyel ñu ko ndax ñu bañ a ñëw fii fii tefes gi fii ay jën dañ fi daan teer lu nekk dañ fi daan waaye léegi mën loolu yëpp mënatoo kaa am ndax salte bu metti dafa salte kuñ si jàppale nag ñu jël ñun loolu la soxla nu ñu dimbali suñu tefes gii mu salte mu set ñun loolu la soxla ku ñu jàppale nag waxuñu ay wax nii rek bu ñu pare ku ne dem waxuñu loolu dañu bëgg ku ñu si jàppale mu set bee da aan bi set wicc ñun loolu la ñu soxla indi ñu fii loo xamante ne ay fu ñu xamante ne bu nu amee sañuy mbalit mën lañ ko see def bo auto bi ñëwé jël si loolu lañu bëgg wa wasalaam. ma ngi tudd Charles nek sante Tambédou doon pêcheur aussi waaw doon ancien pêcheur ba légui pêcheur la ba légui ma ngi dem jiw waaw wuté nek nekk euh, yu bari nek wax dëgg yalla comme genre paa yu gulli yooyu waaw ñoo ñu bañu bayé géej jagg na mais man bo ba légui man maa ngi dem géej man waaw. pour moo wax ne si mbalit mi nekk si tefes gi fii euh, mit nañu trop doonu lu ñu neex parce que yaraax am nay jamono yoo xam ne meloon na melokaan boo xam ne ku nekk ba nga dëkk yaraax te boo ma sànn sol yére aussi jarul ngay lal dara si tefes lu mu set set set lu mu fëleere fëleere fëleere mën nga ñëw toog noonu ak yére boo fëggatoor day set presque booy xool tefes yëpp noonu la ñu meloon mais population bi fi mu nekk nii saturé na saturé boo xam ne euh, mbalit fu nekk lu jóge te yaraax poos la poste la boo xam ne fu mbalit jógee rek euh, côté côté penku rek yaraax lay tuuroo kooku moom kenn mënu si dara mais xam naa ne bu amoon ay barrage aussi si lay gën a si lay tane parce que comme ay xeer xeer yi nekk sali côté sali yooyu xeer yi ñu baare si kanam bu ko amee moom xalaat naa ne mbalit dina wàññeeku foog nañ ne nag mbalit mi waa yaraax fii def d'accord xëy na peut-être mais sama gëm-gëm ak sama gis-gis waaw li ma sama li ma sama sama xalaat jox mooy mbalit mii ah, si ndox mi lay jóge di ñëw di tuur fii waaw mais yaraax wax dëgg yàlla defatuñu fi mbalit waaw buñ ko fi doon defit defatuñ ko fi parce que oto yaa ngi circuler de gauche à droite chaque deux heures de temps wala chaque trois heures temps oto mbalit na ñëw jël mbalit bi te am naa yaakaar ne tuur mbalit géej jóge si ko tuur mbalit géej tekk sa buntu kër oto oto bi ñëw jël si ko moom moo gën a yomb te lool la ñu defal it loolu la am waxtaan wax dëgg si la bokk waaw bu ñu amoon ku ñu gën a dimbali mu gën a rek bu ñu amoon projet boo xam ne na mën def ay xeer ci kanam ba nga xamante ni bal mu ñëw day baariwu ci xeer yi bon dina am solo trop loolu moom yarax moom loo ko bale bale bale it bu géeg yëngatoo rek ndox mbalit mi day ñëwaat ñi nga xamante ni ñoom ñooy la yaakaar ne ñoo ci tur mbalit waaw lu ci mel ni na dëkk yi ne ci kanam la waxa ñoo fu ñu bañ a loolu nga wax aussi mën na nekk comme côté caaro ah, yi côté ah, mbaaw même coté tëngéej bu fa mbalit tuuroo bu géej gi gën a xee mën nañoo tuur si fii bu sàmbaraaxee ndox mbalit mën na ñëw tuuri si fii waaw loolu moom loolu moom loolu moom du am loolu moo ñu sonal ñun dëkk yi ñoo ñu sonal waxtaan wa dëkk si la bokk mbalit mu tuuru foofu rek fii la jëm si waaw boo xoolee si géej gi sax même bu ñuy dem géej mbalit mi ñuy tuur da ngay gis ni muy yolee jëm côté yarax di romb yarax di dem léegi nag bu korong bi jëwee yarax da ngay gis mbalit mi ni muy continuer di ñëw di dugg si biir dëkk bi te bu duggee poos la bu duggee bu xasee ba dugg dootul génnati waaw bu xasee ba dugg dootul génnati moo tax pour fii settal ko lu jafe la lu metti la léegi maire bi tamit ni muy fay ay nit ñuy bale ci biir ah, na fay daan na ko def daan na ko def sax mais mais na métti na wax dëgg yàlla métti na seen en waa seen environnement ne woon nañ fi dañuy bale bale bay bëgg de mais bu ñu bale bu ngi gën a xëy rek mbalit mi ñëwaat bu ngi gën a xëy rek mbalit mi ñëwaat waaw fi nekk ne tane woon na mais nag waxtaan wax dëgg seen bopp loolu métti na trop loolu moom métti moom liggéey métti lañ doon liggéey wax dëgg yàlla waaw seen liggéey amoon na solo mais métti woon na parce sa yu géej gi feree rek ñu ngi ci bu géej gi feeñ ñu tax même goudi sax bu géej gi di fer goudi sax de gis na la ñuy liggéey goudi waaw mais biñ ñu fi jógee ba léegi dal ba limi dal kenn mënut ci dara waxtan do gis la waaw ok merci jërëjëf salaamaaleykum maa ngi tudd Omar ndjay dëkk fi ci an Yenne précisément an beler yarax ci kaw waaw ñu ngi won nak euh, di nuyu gaa yëpp di len ziar di nuyu walé askan bi yëpp di wax ni ñun mom dara taxu ñu juk dul an beler parce que mom lañ fi am surtout an mère ndax ñun fi leen dëkk dëpp benn nekkee xale ba léegi géej nii la masamel masul changé waaw masul changé wax dëgg yàlla bëgg nañu nag ku ñu jàppale ñun jeune bi moom ñu ngi nii da bañ sax ba faruñu fenn amuñu benn politique mooy loolu léegi daal ñu ngi ñaan yàlla état bi ak ñi nga xam ne yàlla may na leen doole ñu ñëw gëstuñu parce que boo xoolee terrain bi ñun waa jeunesse bi ñoo ko ñoo ko organisé ba mu ba mel nii kon comme que lii fekkee mel na nii ñun tamit war na mën a organiser wu ba géej gi daa man ma sax ni mën nañ ko setal ba mu mais mën nañ def suñu kéem a la kàttan ba affaire bi mën a ni quoi kon ñu ngi ñaan yàlla di maa waxee nag si turu gaa yëpp sant mën ma wax mais dañ ma jiital mais daal ñu ngi ñaan ñëpp ñu ñëw xam ni Hann Bel-Air bi suñu Hann bel la yaraax suñu yaraax la géej suñu géej la te franchement bëgg nañ si woo ñëpp ñu ñëw ñu jàpp si ñu ñëw ñu jàppale ñu ñu am ay matériel am ay bagage am ay lépp ba chaque dimanche wala chaque un mois ñu mën a génn bale ñu nag ñu ngi koy waxee si turu waa yaraax yëpp an yen bi ak sama gaay ñoo ñep ñu ñaan na gaay ñu ñew ñu jappalé ñu bu baax amuñu benn bagage amuñu dara ku ñu jàppale dal ñu jël wax deug yalla ku ñu jappalé ñu jël waaw monsieur le maire tamit mom ñu ngi lancer message parce que du tay lan fa dem dem nañ fa une fois ba ñuy commencé suñu terrain bi ba tey gesooguñu matériel gis ngeen des fois gaay ñoy kolo kolo pour jënd ko waaw maire bi ci bopam moko war défar comme que waaw dañu war a jàppale mais ñu ngi ko si woo bu baax gisaguñ ko nag ñu ngi ko si woo bu baax di woo ñëpp xam ñu ñëw taxaw ñu parce que ñun moo amuñu lu dul suñu koñ amuñu lu dul suñu dëkk tey gis ngeen fii nu mu mel xale yeeg mag ñee ñëpp fii lañ fooy te tey gis ngeen nu mu salte mënuñu si dara waaw ñu daal ñu ngi woo ñëpp pour gars yi ñëw jàppale ñu surtout monsieur le maire leen wax nag journée bi tey li ko faral dañ ne mooy démb ba tey journée environnement bi maanaam Wally Seck moo initié waxoon nga suñ bàjjenu gox muy Marème Niang Marème Niang nag ñëw ba si ñun wax ñu ko comme ñun ñoo yor wàllu mbalit mi fii ci ñu ko egg ko suñu waa ñun ñëpp ñu xëy ñun tamit jigéen ñeeg góor waaye taw bee taxoon ñu bàyyi ba 10 heures bi 10 heures taxoon ñu dem euh, moo tax tey jii nag ñu ngi ndax bëgg nañ suñu géej gi ni tey jii at bi kàppaar yi mooy géej gi gën a sant te dégg naa amoon na ay temps mooy géej gi gënoon a set ci moom kon tey ji loolu lañ chaque buñ toogatee chaque dimanche ñu jéem a ànd si ñun bu dee benn jigéen bu nekk sax wala benn góor bu nekk am juróomi saako mbale kenn ku nekk toog juróomi saako mbale bu yàggee place suñu place dina mel ni place yëpp te suñu place bi benn place daa suñu tuddee ak suñu ñun nag suñu association bi dugg Alpha Sall léegi nag comme ñun kuy bale ñun lay bale le di setal ñun lay setle lu waaye di def ñun asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di leen uh, ziare bu baax a baax di rafetlu taxawaay quelque part dañ koy rafetlu quelque part tamit dañ koy xaw a naqaru daal journée la boo xam ne nii journée mondiale la tey jii nii mën naa ne yaraax yëpp a génn sànq gis naa fi ñoo xam ne maris lañ jógee xam nga bu jógee maris ñoo ba entroit di jàppale waa kon tey waroon nañoo am beneen taxawaay bu ñu man taxawaay bi ñu gis nii rafetlu dafa tuuti trop par rapport ak mbalit mi ñu am ak dëkk bi ni mu toll parce que tamit des il faut ñu waxante li nga xam ne loolu mooy li am dafa am loo xam ne ñun ñoo ko war a defal suñu bopp euh, waruñu ci xaar kenn donc commune bi lii rek la ñu mën a mairie bi organiser journée bu mel nii li ci des yow nga defal ko parce que saako yi sax ñoom ñoo ko jël ay gants jox ko nit ñi woote dëpp ci suba tey li fi génn tey ku nekk xam ne ne entourage yoon la nag bu ñu ñëpp génn mais ko bëgguñu journée bi yem tey nañu jàpp ne kenn ku nekk ci dëkk bi am nga juróomi saak yoo xam ne da nga ko war a def bari teg ko fu la neex waa UCG ñëw loolu mooy objectif parce que délégué de bi muy jàllale loolu la jàllale dëkk bi kenn ku nekk dañoo bëgg nga ñëw sol juróomi saak bari foo ko teg baax na waa UCG ko def tey loolu moo nekk suñu nag semaine bi yëpp mën nañ ne kenn ku nekk tey jàppal ne war nga def juróomi saak bari teg ko fu la neex waa UCG ñu ngi siyaare ñëpp nag di gërëm bu baax ñu fi teew nii rek la bu ñu woote ci dëkk bi toujours ñii ñooy ñëw donc ñu ngi leen di ziare bu baax di ziare Youssouf bu baax. Ah, sant ñëpp vraiment woote ñu ñëw dafa am solo parce que man affaire bi ñu ma sensibiliser ñu ngi war a set setal dimanche le 17 village ba ñi ñëpp génn macha allah ma koy rafetlu parce que mënoon nañu leen a wax rek bu bañ bañ a topp wax bi def lu leen neex mais dañoo génn mobiliser seen doole ak seen ñax donte les moyens ne sont pas réunis ndax joxuñu leen ndox joxuñu leen lenn mais ñu am seen jom ak seen bëgg endroit daal di ñëw fekk si ma ci woote boobu ñu ñëw pour bale bee bi vraiment kontaan nañ ñi ngi interpellé Mbàkke nag mu jàppale sama jigéen ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci emploi lu mu leen jàppale doyu ndax man amoon luñ ñoom su ma sañoon lépp lu muy def mu impliqué leen ci di ñu wooree ñoo ñu xam euh, kii naka la ñuy organiser parce que ñun dañu ñëw nii mais sensibilisation bi ci war amuñu ko daal dañu ñëw rek pour jàpp ak bëgg suñu wax ak suñu ko loolu rek moo ñu yëkkati mais bu leneen amatee mu impliqué leen bu baax ñoom ñu euh, ñu nekk ci jàppoon si jërëjëf may Karim yi vraiment moom itam moo suñu góor ci suba bu huit heures ba léegi mi ngi fi sonn sonn maa ngi nu ñëpp di sant bi ñëpp ñi teew fi jërë